boo xam ne daal euh, soxna jaara mm-hmm. ñaaw na mm-hmm. le président de la république keroog bi muy mujjee wax ak sénégalais yi ak bi muy mujjee def conseil des ministres àdduna ci xamale na ni mu ngi sàqu ci ñu amal ay campagne électorale yu apaisé mm-hmm. xamale na ni mu ngi sàqu ci ñu amal ay campagne électorale yoo xam ne sans violence ku ci nekk ñëw taataan baatu askan wi ci programme bi nga xam ni moom nga am war koo teg ci loxo askan wi ñu ñëw tey gis lii nga xam ne am na ca Koungheul mu nekk loo xam ne man pour man moo boo utiliser rek am na bu ko gën a rëy am na bu ko gën a kawe c'est de la lâcheté extrême nga jël xeer sànni ko nit mu am double fracture soxna jaaro kooku bu yoroon tey leneen lu dul xeer. Mhm. daf koy utiliser. kooku bu yoroon tey fetal da koy utiliser kooku bu mënoon kar seen convoi am lu mu leen pexeel daf koy def ma jàpp ni élection quelle que soit sa nature. war nañ cee mën a dem ak ay argument war nañ cee mën a dem ak ay proposition war nañ cee mën a dem ak ay programme waaye nag li honorable wax waxoon naa ko fi la fois passée bu dee yow da nga ñàkk ay argument tu vas utiliser l'argument de la force te dafa am ñaari différence entre la force de l'argument et l'argument de la force la politique devrait être l'usage de la force de l'argument mais pas de l'argument de la force mooy que nag boo demee ba manqué li nga xam ne moom mooy ay xalaat yu sell boo demee ba manqué li nga xam ne moom mooy programme boo demee ba manqué li nga xam ne moom mooy ambition boo demee ba manqué li nga xam ne moom mooy proposition tu vas finir par te proposer toi-même mm-hmm. mooy yow sa bopp ngay proposer te proposer sa bopp mooy proposer sa jikko proposer sa bopp mooy proposer sa nekkin proposer sa bopp mooy proposer sa taxawaay ay naan jikkoy borom pax et que man ma jàpp ni haine la haine warul woon nekk ci ëtt politique désaccord nag mën na am man dama cee d'accord entièrement mais désaccord boobu soxna jaara warul jur haine mm-hmm. haine moom mooy indi violence te démb li ñu gis mooy haine man mënuma comprendre que nit mën na haine moroomu doomu aadamaam mm-hmm. à ce point cible bi nag kenn la woon le premier ministre loolu la ñuy wax parce que mooy tête de liste Malick Gakou du tête de may profité ci occasion bi di ko massaw mm-hmm. di ko souhaiter un prompt di ko ñaanal yàlla daal li nga xam ni yéene na ko Euh, mu am yàlla mottali ko incha allah mais mais professeur Sougou sànq ah, honorable dafa wax lu am solo bien vrai que ne sax si mer la ko waxee mais aussi mi ngi xam le ni que ni rupture rupture rupture bañ na la rip effectivement c'est vrai aussi gis nañu que ni euh, euh, ki nga xamante mooy Ousmane Sonko tête de liste bu Pastef depuis boobu tey ñi ngi gis nii daf lépp lu nga xamante dafa soxal état utiliser wu ko mi ngi demal ak ay moyens wu boppam mais nga nekk premier ministre ak lu même bu nekkee tête de liste bu parti Pastef aussi premier ministre ñu koy di et puis ful bi nga xamante ni moom lay euh, moom lay moom moom moom lay àndal amul benn euh, candidat boo xamante dafay ànd ak moom est ce que tamit jotul moom aussi mu jox ay responsabilité xam ni dafay ànd ak ay nit même budul moom sax ñi ci des moo nga xamante ni leen mën a protéger. wax nga dëgg moom sa protection est obligatoire. sa protection est nécessaire parce que institution la. Mhm. soxna jaara mu neex sugu mu naqari ko mu neex jaara mu naqari ko Ousmane Sonko mooy ministre nga bokk Pastef nga ñàkk faa bokk mu neex la mu naqar mooy sa premier ministre li nga wax nag ak li honorable wax man je suis parfaitement d'accord et je pense que jot na et que yaakaar naa ni sax dinañ jël matu matuwaay yooyu bala ngaa dem ci gox nga renseigné ñëw ba xam lan moo la fay xaar ak lan nga fa mën a am wala lan moo la fa mën a dal jot na aussi d'accord xam nga rupture c'est bien boo man aussi dafay am loo xam ne soxna jaara damay yaakaar ni nécessité la surtout état la xam nga état na comme li may wax ñun ñëpp mu neex ñu mu naqaruñu le premier ministre mooy suñu premier ministre le président mooy suñu président mm-hmm. seeni voyage ñun ñoo ko war a prendre en charge mm-hmm. seeni déplacement ñun ñoo ko war a prendre en charge et que noonu nag la ñu waree jël en charge li nga xam ne mooy seen kaaraange mm-hmm. et que comme li nga wax jot na bu dee menace bi taxaw na et je pense que sax su ko defee dafa koy def ci temps bi nga xam ni moom mooy le bon temps parce que gis nañ ni victime na agression parce que moom moo victime parce que kenn ku àndoon ak moom moom la ñu def jëf jii nii donc yoon pour man tey jii nii mu jël ay éléments yi nga xam ni sécurité état lañu. ñu war a mën a assurer sa sécurité mu bañ a dépendre kese kese kese kese kese ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy sécuriser ndax lan ndax waa bëgg nga rupture mais bu dee bëgg nga rupture bolooru ci tey jii nii rupture boobu nga bëggoon ce que dana bu dee bëgg nga rupture ba ci tey jii nii ñi nga xam ne ñoo yaakaaroon ci yow boobaa nan la ñuy def bu dee bëgg nga rupture bolooru ci tey ñi nga xam ne ñoom ñoo sacrifié woon seen bopp ñoom ñoo def benn investissement humain def benn investissement matériel pour la mise en œuvre du projet ñoom nan la ñuy def rupture d'accord mais dafay toll foo xam ne il faut que nga appliquer li nga xam ni yow neexuloo woon malgré toi parce que tamit dafay am yow lu la neex ak yow la ngay proposer nit ñi waaye ñu ngi koy proposer bu ñu demee bañ la lii nga ñu proposer kat bëgguñu ko wala lii nga ñu proposer waa bëgg nañ ko de waaye gis nañ nga rencontré ak jafe-jafe yi kat nañ xool nan lay demaatee nga indi leneen loo proposer benn ñaareel bi ci nga xam ni mu ngi dugg ba tey ci contexte rupture xam nga soxna jaara lan lañ doon faral di wax de maa koy wax benn waaye Bakary Mballo ma koy nuyu au passage ma ni ko mais il paraît attaqué nañu cortège kii euh, premier ministre Ousmane Sonko ma ni ko mais d'habitude lu ñu doon gis mooy ñi nekk ci nguur ñooy attaqué waate mm-hmm. donc da leer ni affaire bi kenn njortul woon ni di nga nag campagne da ngay da ngay mettre tous les moyens nécessaires nga jël say matuwaay yëpp ut say sécurité yooyu mais boo xoolee sax ñi nga xam ne ñooy ànd ak yow liggéey bi ñuy ëpp bu ci bi ñuy def bu ci ëpp mooy nit ñi di ñëw di la nuyu nit ñi bëgg ñëw di la laal ak ñi ñuy xool nit ñuy xaale yoon mais kenn mënul woon imaginer euh, euh, kaaraange bi gën a kawe sax mooy ñi nga xam ne yi ci def formation bu ba très bien arena tey par am na ku ko wax sànq yàlla moo ci def sutura rek pul ba la muy bari bari bari amul woon takk der ba nga xamante ni ñoom ñoo yoroon seen ay sécurité loolu lu ne mënoon na ko am bëgg rupture c'est ça bëgg rupture bëgg mm. rupture day day day day indi parfois leneen loo xam ne tu es obligé nga appliquer mm-hmm. lii nga xam ne yow bëggoo ko lii nga xam ne yow neexuloo woon mooy mm-hmm. li may wax léegi nag yow bu dee yow ñi nekk état lañ doon gis muy def yenn actes yi mais actuellement li ñu gis démb ki nekk état moom la ñu agressé loolu rupture lay wane mais ci beneen côté soxna jaar il faut qu'il pour man des sanctions sévères ñi nga xam ne ñoo def jëf yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo santaane mbir mi ñoom ñëpp ñu sanctionné leen te yaakaar naa ni toujours que ni yoon dana def liggéeyam parce que ñun à chaque fois bu ñu nee yoon dana def liggéeyam à chaque fois bu ñu nee état rek mooy ñu ngi manifester une certaine incapacité mooy ñu ngi manifester une certaine faiblesse mooy ñu ngi manifester une certaine limite par rapport ak li nga xam ne bëgg nañu mu am par rapport ak li nga xam ne bëgg nañu mu réaliser wu suñ ne tey jii na état jël ay matuwaayam xool nan lay tegee dispositif ñoo xam ne ay agent de l' état lañu yëngu ci wàllu sécurité wàllu kaaraange ñu indi leen ñu paraat ne yoon def liggéeyam mooy que ku sañoon ci ñun soxna jaara ñu sanctionné ki nga xam ne moo def jëf ci ñaaw jooju ku sañoon ci ñun ñu sanctionné ki nga xam ni moom moo digle jëf ñaaw jooju waaye nag suñuy moyens yeggu fa amuñu mën-mën bi amuñu kàttan lu ñuy def ñaan justice def liggéeyam et je pense que dans ces situations il faut que ñenn ñi aussi savoir raison garder je pense que dans ces situations bis bu justice defee liggéeyam ngal la waay buñ ko politiser. non politiser ces genres d'affaires là mooy yow nga def jëf di ñaaw ba pare bëgg ko cautionner après bëgg a lamenté wu bëgg a victimiser wu gëmloo sénégalais yi que yow victime politique nga wala otage politique nga c'est archi faux mm-hmm. osons le dire. yabaate weesuwul ngay def ay commandement yenn yi pour ñu faagaagal nit wala pour ñu gaañ nit taxaw jàkkaarloo nii sax saaga je pense que bépp leader politique waroon na ko tere ay militant wala ba sa militant bu ko defee nga xamal ko ni man kat lii sant moo la ko caravane yi mën nañu daje yaa xaytu mu laa bu dee dem ngeen ba mënoo leen nuyoo mënoo leen saafonte waa na kenn xaar moroomam jàll wala bu ngeen di jàll ngeen xool nan ngeen def te sécurité yi nga xam ne ànd yow loolu day nekk seen rôle. et puis dañoo war a xam que ni. Euh, opposition bi ñuy jàkkaarloo opposition système bi la ñu ko comme ni ñu koy waxee te ñoom dañoo am seen façon politique. waaw façon politique yenn yenn pratiques yi seen i pratiques la violence la ñu xam te dañu jàkkaarloo politique euh, ay opposition opposition bi nga xamante ni euh, professeur Sow. Mhm. dañu ami koppar te daf leen a jaral. ak nguur gi nga xamante ni moom la ñu jàkkaarloo duñu leen may dara donc ñoom ñoo war a jël seen ay matukaay ci li nga xamante moo ñeel seen kaaraange protégé wu ci li ni moo ñeel violence yi ñu fàtte ne aussi même qui est notre premier ministre. jë jël sama tuwaay moom du ñu dañ ci di ko wax. déedéet. dañoo am seen façon bi ñuy defee politik wax nga ko olof naan mbaam bu la wéqee nga wéq ko da nga mel ni moom. Ah. mais dafay am foo xam ne boo fa tollee chaque jour ma wax ko fii violence kenn du ko cautionner et jamais au grand jamais ma taxaw ne. violence bi baax na mais dafa am foo xam ne boo fa tollee li ñu naan mbaa bu dee nga wéq nga koy wéq am na loo xam ne nag du nekk réaction premier ministre Ousmane Sonko te waru koo nekk. Mhm. am na loo xam ne du nekk réaction El Hadj Malick Ndiaye te koo nekk. am na loo xam ne du nekk réaction Abbas Fall te waru koo nekk moo tax barki démb moo Ndiaye bi mu faxee loolu delluwaat na ne maa ngi jéggal wax nga ko léegi. lii nii dafay tax ñu comprendre Abass Fall mhm. lii nii dafay tax ñu war a xaw a sax jox raison Abass Fall mhm. et pourtant kaddu Abass Fall yi am na ñoo xam ne ñu ngi biir Pastef mu ñaawlu nañ ko mun nga cee d'accord mais nga ñaawlu ko nga ne ah est que waruñu woon sax Abass ne ko mu apaiser mais lii nii lan lay joxewaat mhm. kenn àndu ci ñun bërki dem bi ñu toogee loolu la ñu wax ñu ne mais heureusement delluwaat na ne nañ ko baax waaye Abbas Fall dina toog dina ni man am naa raison te xolam dina metti day metti bu ne am naa raison parce que dire même kën nañ parewu nañ armé wu sax neexu ko mm-hmm. daf koy wax malgré moom moo tax ma ni day am foo xam ne bu ci tolloo ma waxaat ko cautionné wuñ violence mais day am xam ne bu fa mbir ma tolloo gat sa gat sa vous m'excusez du terme bi Ousmane Sonko doon wax dafay ñëwaat waaye nag xam nga gat sa gat sa boo koy def nga nekk état ñu ne la waaw yaa yor caq bi mais yaa caq bi ba kañ yaa yor caq bi ba kañ man ça m'est égal soxna jaara ma génn fii. nga ni ma mën nañu bañ a sax ci gas sax mais nga xamante ne gis nga euh, professeur Sougou foofu man Sénégalais li mu gën a ragal takk der ci la bokk. amaana ñooñu ñooñu seen cortège boobu bu ñu ci gisoon takk der yi. loolu day dugg ci dynamique boobu. duñu du ma woo takk der bay am accès sax naka la ñu def am accès ci oto xam nga boo du moo woo takk der yi pour ñu ñëw. Mhm. parce que ay moyens wu état lañ. Mhm. mais yow nga gis ñu ngi dal sa kaw nga indi takk der yi mooy que pare naa ku ñëw def yenn ma mën a ndigg mhm. day dem toujours ci logique boobu nit nag doon di dépassé naa yenn mhm. parce que le premier ministre Ousmane Sonko bu dépassé woon yenn yi tey jii nii du taxaw di campagne qu'est-ce qu'on voit parfois ñu dañuy gis muy campagne ñu fàttali ni sax premier ministre ndax fugg fugg bi muy àndal. engagement bi muy àndal motivation bi muy àndal lan la kostam ku ko doon imaginer. Mhm. kan mooy gis Ousmane Sonko ci campagne nga rappelé wu ne automatiquement premier ministre tu vois ce monsieur bi nga xam ne amoon na lu mu bëgg doon opposé wu di drainer ay foule su ko neexoon laal ay kii caravane yi dootu ko defateeg ñoom seen mu ne xoolal am naa la voix de la majorité des Sénégalais mais dafa mel ni sax beneen la ñu gisaat bu gën a am dynamisme ba nekkoon ci opposition bi mm-hmm. bu gën a am engagement Ousmane ba nekkoon ci opposition bu gën a am bu gën a am bu gën a am. Mm-hmm. mu leen leen kii am na lu mu bëgg kii tëddul di nelaw kii tëddul ne sénégalais ànd nañoo ak man mu neex nit ñi mu naqari mu ngi am leneen loo xam ne sàquwaat mu ngi koy sàquwaat pour am la pour am fu mu jëmale réew waaye yaa xaytu ma laa soxna jaar ak yow bul far ak moom bul jaar fu muy jaar bul far ak moom bul ànd ak moom ci li muy wax bul far ak moom d'accord. mais après tout il faut savoir lui accepter li nga xam ni moom la ko yàlla may. Mhm. après mu jeex. te dafa t'as t'as l'impression que ni jamono juñ toll nii ñoom seen euh, seul euh, voilà euh, combat mooy. def ci suuf si def ci cere ji suuf parce que amuñu ful gisuñu seen ay leader gisuñu seen ay leader nit yi peut-être ni ñu waroon a ànd ak ñoom àndawuñu ak ñoom donc lépp lu ñu mën a def ba xajamal élection yi walla campagne bi dañu koy def loolu lay wax loolu mooy euh, manque d' argument bu dee yow da ngaa ñàkk ay argument mhm. ñàkk ay xalaat ñàkk xam-xam ñàkk éthique ñàkk moral lan ngay utiliser violence mhm. et que nit ki nag wax dëgg yàlla noo mel rek noonu la say mbir di manifester woo mhm. et parfois honorable wax ko fi da ngay nekk ci parti politique wala nga nekk ci ab euh, mouvement ak ñoom seen ñu am yenn sale boulot yoo xam ne yow lañ koy def loo mais c' est parce que juddu boobu nga am c' est parce que deretu defkatu sale boulot moom mooy daw ci yow Mhm. moo tax tey jii nii bu ñenn ñi amoon une certaine prise de conscience xamaat seen taxawaay xamaat ban considération la ñu war a am ci seen moroomu doomu aadama je pense que du ñu def yenn jëf yi mhm. la waa ji doon wax ne l'homme a besoin de ses semblables pour partager le sentiment d'exister. Mhm. mais nous pouvons exister en étant en contradiction nous pouvons exister en étant en désaccord nous pouvons exister di critiquer suñu biir mhm. c'est-à-dire que critique yooyu d'accord mais est-ce que loolu ça doit motiver benn haine je ne pense pas soxna Diarra mhm. léegi nag comme li nga wax ñii am nañ ay moyens ñii am nañ ay euh, euh, matuwa matuwaay am nañ ay jumtukaay yoo xam ne moom la ñuy utiliser pour def campagne mhm. dañoo bëgg a xajamal c'est normal c'est très normal ñu bëgg a xajamal xam nañ duñ gagner xam na ko majorité bi duñ ko am. léegi nag xajamal googu <laughs> man soxna jaara xam nga nu may def. xam nga pour man ban xajamal moo gën a yenu maana mm-hmm. ah ma toog croiser les bras su ma croiser les ne bokk ma. Mm-hmm. ñu ne kii kat xam na boppam. xam nga élégance élégance dafa neex wallaahi su ma nekkoon actuellement di opposé wu soxna jaar ba dajeeg ponkal damay wàcc sama oto ndànk dem nuyu ko mm-hmm. soo xefee ma yëg ci oto lonk ko gaay mi tàccu la mm-hmm. ñu ne kii de amul nit mais yow jour boobu yow yaay def buzz. mais gis nañ ko ci ñeen ñi gis nañu cortège baax Cheikh baax Ndiaye ak bu Anta Babacar mu Ngom romante nu yoon te saafan après ñëpp. mu ne violence amu fa. man su ma doon gars yi ñoom ñoom. ñi nga xam ne ñoom bëgg nañ ñuy wax ci ñoom. dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg damay dem kari ji cortège Ousmane. Mhm. dem foofu fexe nu ma wàccee parce que gars yi duñu la téye man élégance bi ma gis ci moom danaan buñ la naroon tee sax danaan bàyyi leen ko. Mhm. nga ñëw yéeg lonk ko xoolal soo xefee sa loxo. ne la nag neexul ba neexul yaa fi nekk. Mm-hmm. mais maa ngi dem ñaanal ma di nga gis ñenn ñi nga am sympathie ñenn ñi ñenn ñi ne ah kii kat li mu def rafet mais yow defatoo ko kii nit ñi ànd nañoo moom yàlla may nekk après tu